Madame Fall nekk euh, gérante restaurant Les Lions waa avant tout man membre laa Adam éleveuse laa damaa exposé waaw ñii samay càmmiñ lañu yàgg nañ xamante ci secteur bi parce que am na foire yu bëri ya nga xamante ni man maa koy couvrir may profité ci occasion bi aussi di leen euh, remercier ci confiance bi ñu am parce que organiser foire sal Adam nekkul affaire bu ndaw comme bu ñu amee ci yow confiance jox la ko ngay toggal seen gan di toppatool seen gan gérer leen seen cérémonie officielle loolu aussi il faut ma remercier leen si seen confiance. lekk moom daanaka amul secret na na set te na neex te nga yéene ko di koy lekk ah les bi nag boo ko gisee nag entreprise bu mag la parce que li la te dafa yor ay restaurant mu ngi basé wu à Saly ñu ngi ñor ñaari restaurant à Saly benn bi si ci bienvenue à sali bi euh, beneen bi mu ngi nekk ci rond bi rond sali euh, am nañ beneen mu ngi nekk Grand Bourg booy dem yoonu hôpital. ak benn ba nga xam ne mu ngi nekk ci route nationale bi immeuble Samassa ñu yor ligne traiteur ba nga xam ne aussi événementiel yu bëri dañ koy couvrir soo ñu woowee lépp luy dem ci wàllu togg wàllu décoration dañ koy liggéey yàlla dogal nag ñu ànd ak benn équipe bu jeune bu xarañ bu bëgg li ñuy def vraiment muy profité ci occasion bi aussi di leen remercier di leen ñaanal ak éleveurs yi nga xamante aussi ñoo ñuy encouragé bàyyiwuñu benn yoon fu ñu génn ñaan yoon togg yi neex na bari na macha allah ñoom ñoo ñu gën a ak problème logistique bi vraiment euh, defuñu suñu liggéey lépp ñu ngi ci place sénégalais yi ñu ngi si michu yi parce que gis naa ne éleveurs yi dañu bëgg michu yi ñu ngi sama spécialité la en fait man michu yi sama spécialité la dama koy jaay partout dans le Sénégal euh, michu bi mu ngi dox bu baax gaa yaa ngi lekk di bi añi tamit macha allah plat boo fi sénégalais boo fi teg moom gaa yi dañ koy lekk. waaw man am naa fi base maa ngi Guédiawaye cité des enseignants euh, maa ngi Mbour aussi si adresse yi ma la jox mais ku ñu soxla mun nga ñu woo ci 77. cent 690 82 31 wala nga woo ñu sur le 902 36 01 événementiel lépp la ñuy dóor luñ ci lu ñu waay woo rek ñu ñëw liggéeyal incha allah. ok jërëjëf. waaw salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi safoo di seetaan télé bu mag boobu nga xamante ni mooy euh, Ladoum TV ay ca comme niñ ko taamu di waxee rek tey ñu ñu fekk fi nga xamante ni nii moom mooy suñu resto bi nga xamante ni mooy restaurant traiteur Les Lions. ñu gën koo xam ci Ndeye Amy Diatta la Lyon jigéen ju mën góor euh, tey nag euh, ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Ladoum TV daal di ñu fiy fekk euh, di xool li nga xamante ni moom mooy waa restaurant bi nga xamante ni mooy restaurant Traiteurs Les Lions li ñuy liggéey ak seen liggéey lan la ginnaaw bi ñu ñëwee nag samp ñu caméra yi daal di ñuy jox micro yi ne nañ daal di wax li ñu xam ci foir bi kon nag du ñu def leen rek lu dul nuyu mbokku téléspectateurs yi nga xamante ni dañuy safoo di seetaan télé bu mag bii nga xamante ni mooy euh, Laadum TV euh, di télé gox bi télé askan wi dama ne lépp lu leen réer ci mbirum élevage euh, jàpp naa ni boo leen seetaanee rek xool day daal di sedd duma def leen rek lu dul nuyu waa axlu élevage nuyu tamit waa salon Adam bi nga xamante ni nii ñoom ñoo organiser foire bi nga xamante ni foire international la daa dañu ciy wóolu nag ñun waa restaurant traiteur les lions muy restaurant bi nga xamante ni dama ni ñàkk leen a woo ndax te nga am cérémonie officielle wala nga am lu mel ni foire boo leen ci woowee dinañ la taxawu li nga xamante ni mooy sa foire euh, ba say client du ñu sonn ñi nga xamante ni ñooy exposants yi tamit euh, du ñu sonn waaye tamit yéen waa site internet yi nga xamante ni yéen ay waa Ladoum TV ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax a baax di wax ni ñu ngi leen di kontaane di leen bëggee di ubbil tamit di tàllal loxo yi képp ki nga xamante ni rek yaa ngi safoo di seetaan Ladoum TV ñu ngi leen di présenté restaurant bu mag bi nga xamante ni mooy restaurant traiteur les lions nekk ci diwaanu Mbour nee naa leen tamit lu waay am muy foire ñu organiser la ko ba mu baax joxal la ay lekk ba nga kontaan ba kenn du ñëw yàpp la da ngay seet ci restaurant bu mag bii nga xamante ni mooy restaurant traiteur les lions soxna Ndeye Amy Diatta laa Lion jigéen ju mën góor. acca comme niñ ko waxee rek restaurant traiteur les lions nekk restaurant bi nga xamante ni nii dama ni. Euh, képp ku nekk ci Sénégal xam nga ko parce que diggante mbuur ba Dakar jàpp naa ni am nañ fa ay resto 10 jours yi nga xamante ni nii nag am nañ ko ci foire bi mu nekk 10 jours yi nga xamante ni ànd nañ ko clients yi ànd nañ ko exposant yi euh, nee naa la ci biir 10 jours yi chaque jour bu ñu xëyee matinal bi dinañ def li nga xamante ni mooy petit déj mooy ndekki bi ndekki li li nga xamante ni mooy dinañ def euh, corned-beef dinañ defar gars li nga xamante ni moom mooy mburu ak nen ku bëgg sandwich am na ku bëgg li mel ni fataaye amoon na fi ñu àndoon ci ak gars yi peeton amoon na ak mayonnaise parce que nekk na li nga xamante ni lu neex askan wi la ñu gis tamit ni ñun ak ñoom àndoon nañ ci kafe am na fi café Touba meew defar li nga xamante ni mooy nes Nescafé amoon na fi lu waay soxla rek dañ la koy jox ba nga kontaan bu ñu ñëwee ci bëccëg gi nag mooy heure añ daan nañ def yaasa poulet togg li nga xamante ni mooy yaasa jën ceebu jën di def mbaxal puuj paaj bi amoon na solo parce que ku ne xam na ni euh, affaire yi dafa metti mbaxalu saalam doon nañ ko fi togg yéen a ngi gisoon noonu ci biir ànd ci ak jigéen ñi nga xamante ni ay ndaanaan kullu faddi liñ lañ guddi gi dinañ def lu mel ni cere baase jot na fee jaar lu mel ni euh, lu mel ni dibi te suñu dibi benn dibi la ci dibi clients yi xam nañ ci dara su ma ko waxee clients yi seetaan Ladoum TV safoo ko xam nañ ci bu baax suñu dibi benn dibi la ci Sénégal amul feneen miss wi grand bas lim ciy def dama ni c'est extraordinaire amul keneen ku mën a miss noonu lépp nag ñu ànd ci ak clients yi di leen ko jox ñu ciy kontaan lu sedd nag loo bëgg am na fi lu mel ni jus naturel dañ koy def te duñ ci raxe dara boo ko naanee da ngay sentir ni lu mel ni bisaab bu weex. lu mel ni moninga bi da doon am lu mel ni bisaab bu xonk day am yaa ngi ko gisanoon nee naa lépp nag fii lay xewee ci restaurant traiteur les lions di àndoon ci ak gars yi nag 10 jours yi nekk li nga xamante ni kontaan nañ ci di bëgg ci waa Adam bu baax a baax a baax ñoom Omar Cissé ba ci suuf ku lim rek doo matal da nga mais doo matal. ñu ngi leen di kontaane ci wóolu gi ñu wóolu ba jël li nga xamante ni mooy foire bi jox ko waa restaurant traiteur les lion kontaan nañ ci ñoom bu baax a baax a baax sama yaay soxna nday mi jaata laa lion mu ngi leen di sant di leen gërëm yéen waa Adam ci wóolu gi ngeen ñu wóolu ba jox ñu ko waaye it alhamdulilah ba client yi nga xamante ni jot nañ fee jaar amul benn client boo xamante ni mer na ci ndax li ñuy def dama ne ñun waa restaurant traiteur les lions xooluñu ci xaalis dañoo bëggoon client yi bég te client yi bég nañ ndax ku fi lekki bég nga ku fi lekk sorement bëgg nga ku fi lekk leneen ak leneen bëgg nga di leen jaajëfal lépp li fii lay xewee euh, ci Ladoum TV nee naa leen ñàkk koo xool wóorul dee leen ko càpp di ko zappé ndax lépp lu am ci élevage boo ko bëggee gis da ngay daw seeti laadum TV fa la xewee xar yi nga xamante ni loo ko dalee ca maam ba sët boo ñëwee ci Saalum Morse Algor ah wala nga ñëw ci ki nga xamante ni nii mooy Mindor mi nga xamante ni xaru soxna Ndeye mi jaata la nekk doomu faadal Fadal nekk doomu Jasaaga Jasaaga nekk doomu Ndigal Ndigal nekk doomu Muxsim Muxsim nekk doomu magistrat magistrat nekk doomu Cheikh Diop mu nekk ligne yu am solo dee leen ko wërsee fii la mburu mi di xoyom xoyomee. I said, Lord,